loo xam ne dafay mel ni. koo xam ne kii dafa war a respirer nii nga xëy di ko ut bo di di taw bi systole bi wala di wàññi diastole bi. Mm-hmm. ça c' est c' est benn loolu la ko ne c' est c' est inadmissible et c' est inimaginable. Mm-hmm. très euh, ñoo bokk li ñuy wax ah. sur ce sur ce temps là du lu du lu kenn moom du lu mm-hmm. Macky moom du lu kenn moom. c'est-à-dire y a yoo xam ne il faut qu'on aille vers un Sénégal yoo xam ne day am ay dañu am loo xam ne am nañ ko quoi li féete na boor. genre respect calendrier républicain dafa war a féete boor sauf exceptionnellement li nga xam ne moom la si yoon prévoir mu am pour loolu bañ a am loolu yàlla nañu si yàlla musa alors euh, donc je pense que les élections vont se tenir et de mémoire am na ay anne yoo xam ne yi amoon na fi ay années yoo xam ne yi ñun ñëpp dañ toog di wax non élection du am dara lu ñu wax amul ba xëy gis camions yi di gàddu ay urne di yóbbu mm-hmm. ça va être la même chose gisaguma fi loo xam ne lii dafi tax ñu war fi toxal élection allah bon maintenant si entre temps y a d' autres problèmes yoo xam ne yi am na lu ñu si mun jooyanti san que élection yi dàqu je ne vois pas moo tax duñ ko def s'il a des questions que les gens se posent si quelqu'un peut leur apporter ses réponses pour que ñu mën a jooyantiku ñu xam ne hmm. ñi ñu xañ parrainage kat ñàkk ñu parrainage mais nangam. loolu laa d'accord ak yow. jërëjëf nañu ko jooyanti donte doo jours ou trois jours te élection yi continue. loolu merci beaucoup jërëjëf Thierno euh, Ismaïla euh, ñu jàll ci troisième poñ bi ba tey boobu aussi lu yaatu la. Euh, mën nañ mënoon nañ ci gën a yaatal jàll ci troisième point bi nga xam ne jot nañ ko évoqué muy commission d'enquête parlementaire bi nga xam ne PDS groupe parlementaire liberté et démocratie demandé na ko pour ñu def ko concernant des soupçons de corruption yoo xam ne dafa viser ñaari membres yu conseil constitutionnel euh, bi la yoon nag pour aller plus rapidement dañuy euh, def un tour de table encore sur la question jotoon ngeen ko aborder sànq. Mm-hmm. mais ñu passé très rapidement trois minutes pour chacun imam waaw joxal joxal ayca ayca ayca moom moom comme chroniqueur la moom moom la ci génn xalaatam. après ñu mais am na am na lu lu lu Thierno wax sànq dafa mel ni déggu leen ko. Mm-hmm. ne bu fekkee ne moom mooy chroniqueur bi yéen ñaar euh, ngeen bokk Pastef alors ko man dama leen présenté comme yéen ñaar waa Pastef waa waa euh, euh, chroniqueur question yi ma koy posé moo tax waaw voilà. donc mais mais mais aussi Thierno. man man bokkuma Pastef. dama lay tooñ. waaw <laughs> non c'est une façon non loolu pour que nit ñi xam. parabole la rek. xam nga danañ ci boole ex baay. waaw non non ex ex ñu jàkkaarloo yow. da ngay assumer yow di wax Pastef nga koy nangu. non bañu ma ko maa yow ñoo toog nii ñun kañ ñun ñooy. non non mais mais ñun saa parce que amul saa moom saa moom. waaw bu bokkulee. waaw bëgg jàmm rek nga dem bokk <laughs> de doon wax 2021 euh, naan ma kii de fekk ma ne ko PDS la am affaire yu ma doon yóbbul waa Pastef mhm. euh, ay matériel agricole sama benn xarit bu nekkoon siin bokk ci ñoom teg ko sama loxo mu naan ma waa jii de li muy wax nii mi naan ma PDS xaw ma depuis kaa la nekk PDS waaye li ma seen muy diriku mm. diri <laughs> mokkal na saari Pastef <laughs> bi ah. TikTok nit ñi a nga waay ak ni muy waxee mais boobu maa wax ak Martin Luther King xam nga ci auditeurs yi ak yooyu mi ngi naan ma saa pourquoi def promotion def def promotion wu euh, occidentaux yi ak yooyu mhm. li ma sol yëpp fii lañ ko ñawee suuf cravate bi kaw ba suuf. Mhm. man motaar laa yëre yu wolof bon yëre yu rëy dama am phobie bi parce que tam bi may xale. dama doon internet yi ngay dama doon waaw dama doon wal ci machine wal affaire bi talañ ma. Mm-hmm. sama sëriñ tere ma. Mm-hmm. di sol ay yëre yu kii. moo tax mun ma ko motard laa ah bu ngeen bëggee lañ ko disee jox ma oto après amul problème may ma di leen may <laughs> grave bu buy ba yor naa ci yu bari yu dul jeex damay maye rek dama yor dama yor yëre yu rey mais dama koy maye lu ci yow yow moto bi dafa dafa defoon soog de waaw daf non bi boobu kay wàcc naa ko ba ba wut beneen xam naa tem gars yi dema <laughs> yow ñuy jënd moto yi am nga jëg oto <laughs> loolu la quoi mais comme ah. ñoom ñoom ñoom la ñuy kii uh-huh. faaw ñu di leen tontu matérialité ki loolu la rek damay motard mënu may dawal eh, yëre bu rëy. d' accord d' accord kon dugg nañ si. tey te lii fii lañ ko ñawee nag kaw ba suuf wax dëgg yàlla. suñ suñ suñ man rek nag. macha allah waaw Mahmoud moo ko ñëw te Medina consommé local. très bien alors dugg nañ si troisième point bi nga xam ne dañ koy aborder très très très rapidement trois minutes pour chacun. comme ça ñu daal di apprécier commission d' enquête parlementaire am na ay njoxtu yu ñaaw yoo leen ci am certainement euh, Thierno peut-être mën na nekk le contraire ku ci ne xalaat bi nga ci am euh, imam tey maay mujjee de ndax concerné wu waa APR d' accord waaw mooy loolu presque wax nañ ci mm-hmm. mooy euh, nu mu tuddati li ñuy créé. commission d' enquête parlementaire. waaw mais Sénégalais yëpp ñu ngi ñu ngi dañoo dañoo waaru ci loolu quoi maanaam ni ko ni mu gaawee taf tafee bi mm-hmm. mu ngi mel ni procès yi rek. xam nga procès Sonko yi bi mu bi mu teglantee di gaaw lu mësul am ñu am ña defoon euh, nu mu tuddati euh, recours ñu jéggi fa jéggi fa dossier euh, Seydina Omar Touré plainte ak Cheikh Yérim Seck jéggi fa Souleymane Teliko ak ma Madiambal Diagne bàyyi fa yooyu yëpp daal di taxañ dossier Sonko yi boobu la njortu ñaaw xamoon nañ ne fii lañ jëm donc ñoom tamit seen commission yi ñu ñi ñu ñi ñu organiser ci diir bu gàtt yi taxañ ko gaawal ko ku ci rafet njort rek kenn gënu laa naïf nit mënu cee rafet njort waaye man li may wax rek mooy pexe bu fekkee pexe mu bon lañ ci nar wala jëm cee sukkandiku wala jëm cee jaar ban bay wax waxi dàqi élection yàlla bu mu sotti waaw yàlla bu mu sotti parce que lu ko fi jar dafay amul lu ko fi jar dafay amul ñaata problème moo ñor réew mi réew mi di ci jooy di ci am naqar nga xam ne intérêt askan wi yëpp la yeneen député yi wax ne nañu nañu nañu créer euh, commission groupe euh, comité commission d'enquête mm-hmm. defuñu ci dara ñu ne Karim du bokk dégg nga ñoom ñëpp ñu gaaw taxañ affaire bi loolu vraiment nit mënu ci rafet njort mm-hmm. nit munu ci rafet njort mais man euh, li li Thierno daaneelee rek man loolu laay wax élection moom bu ko fi kenn dàq bu fekkee li ñu wax daal mooy mooy mooy tax ñu dàq élection mooy conseil constitutionnel démissionné mm. moment bii bu ñu démissionné dañoo wor bu ñu démissionné complice la ñu seeni mbokk nañ leen wax ne bu ñu fi démissionné dëgg la nit ñi mere nañ leen mere mu rëy rëy parce que ñi ñàkk parrainage bi yëpp ñoom lañ ko jiiñ Sonko ñàkk gii nga xam ne ñàkk naa bokk ci élection yi conseil constitutionnel moo ko def te ñu ëpp ci Sénégal yi jàpp nañ ne teguñu ko ci yoon waaye xañ nañ sonk sonk mi ngi xañ nee na nañ dem élection euh, xañ nañ keneen Mimi Touré nee na nañ dem élection xañ nañ ñi ñu xañ ñi ñu ci bare bare bari nee nañ d'accord xañ nañ leen seen i droit mais niñ xañee Karim Wade lañ leen xañee kon dañuy dem élection. Bougane Bougane waaw. léegi pourquoi Karim Karim Wade rek la ñuy xañ ñuy xool naan ndax mën nañoo dàq élection yi wala déet li Thierno wax nañ ko def su fekkee am na lu ñu mën a jooyanti ñu jooyanti ko. su fekkee sax dañ bu ko jaree sax ñu xool yeneen pexe élection yi ñeneen bokk ak yooyu noonu waaye dàq ay élection man loolu laa mëntu nangu ci àddina te jàpp naa ne wax dëgg yàlla loolu bu ko kenn xalaatal Macky sàll dëgg la ñàkk nguur daa métti pexe mu nekk def na ko pour am troisième mandat sottiwul na nag na nangu dogalu yàlla xam ne nguur day jeex nguur bu jeexee jeex na ay pexeeg def nangam ñu yokkal ma ñetti weer ak juróom benn weer ak ñaari at ak loolu yëpp parce que nguur gi bu jeexee jeex na. d'accord bu ñu fi créer ay conditions naan dañuy dañuy yokk dañuy dafa damaa jeexal na heure jeex na waaw ok waaw. ah da nga man damay tënku ci temps bi waaw. man de li ci li ma ci yokk rek mooy li ma ci jaaxal mooy. Euh, enquête boo xamante ni dañ ko nar a def dañ ko def proposition pour indi ko assemblée. man yaakaar naa bu dee Guy Marius Sagna dugal na ci lu mat cinq xamu huit. précisément. ba léegi laalu ñu ko xam naa dala échappé. waaw mais loolu lu tax. mais mi teguwul fenn. mooy wane ni am na loo xamante ni moom la ñu bëgg a waajal mais loolu nii du neen ci bàyyi ñu dem. Hmm. élection day am c'est que Amadou Ba taxaw na sax confirmé ne day am day am loolu du débat loolu du débat Karim wadd ndax dafa am ñaari nationalité wala amu ko kooku lañ ca war a dox ñun bu ñu sañoon man bu ma sañoon. mu bokk ci ay élections parce que wax naa ko démb rek xaw ma bërki démb ne leen PDS ni mu toll ni mu toll ñu nar a dem élection yoo xamante ni moom naru naruñu ci participer man loolu man munu ko munu ko expliquer munuma ma ci d'accord mais nag am na loo xamante ni bu xasee ba am bu ndox tuuroo an baax des tey am na yeneen yaakaar naa war nañ mën a am beneen doxalin boo xamante ni ak beneen anam boo xamante ni du ñu pousser ci pour ñuy dem naan dañu ànd ak élection yi moom. mais du moom rek lañ xañ. kan ci ma ne élection yi waa xañin bi sax wuute na waaw xañin bi sax wuute na parce que moom xañ na dañ ko tuumaal ay affaire nationalité am na ko amu ko ñu ne premier ministre ba bind na ak yooyu yëpp mm. bo mais nañu nañu nañu bàyyi xel ni daal li Amadou wax tey <laughs> mais nañ ci sant yàlla kon élection day am incha allah question bi daanaka jaratul sax Thierno du ci guddal ay wax ak yooyu di ci guddal jël man de mun ma ci gudd mais man ah, ah. d'accorduma ci ba ba may gis nag ñu taxaw ne dañuy def lu tax xanaa conseil constitutionnel nag bu leen weddi dara. comme que ñoo taxaw ne Sonko. du candidat te ñàkk a wax sonk candidat googu teguwul ci lu tegu euh, euh, leneen lu ñu ñëw indi ko tamit. te beneen bi gën a garaaw al amin. Mm-hmm. mooy seppi ci jël ci ñaar ne dañ leen a corrompre. Mm-hmm. ba pare ñu wëlbatiku waa APR d'accord ceeg ñoom pour ñu dem procès de loi boobu ñu nar ko ñaar ñaar ñoo xamante ni dañ ni. ko man gis naa fi koo xamante ne daf leen wax wax ju ñaaw mais six mois lañ ko tëj kaso. dafa taxaw buntu buntu palais buntu palais de justice ne ñii accusé justice ñu koy tuddee ti magistrat yi ne bu guddi jotee dañuy dem palais teg ca teg wax ju ñaaw mais six mois tëj nañ ñu ko kaso. mais jomaay lu tax ñu jàpp ko. maa ngi ñëw beneen bi ci beneen voilà ba jomaay bind benn message boo xamante ni daf ko jëmee ci ñoom message SMS ñu ne ko niib jëli fañ ko jëlee dugal ko chargé ko. Mm-hmm. waa léegi yow nga wëlbatiku bismillah nga ànd ak ca ña nga xamante ni ñooy ñooy tuumal lu toll ne conseil constitutionnel. Mm-hmm. les sages les sept sages nga seppi ca ñaar ne dañ leen a corrompre waa léegi li ëpp solo moom ñu voté kook ñu ñàkk ko voté nañu indi lu leeral ne dañ leen a corrompre loola def looloo tax a jóg enquête bi justement ah enquête bi ah, ah, ah ba tey en réalité peut-être c'est ah, mais loolu daal ñaaw na trop merci beaucoup imam Thierno Euh, ma ne enfin li ñuy wax nii c'est vrai que c'est c'est d'une importance capitale c'est vrai que nag après comme j'ai dit xam nga booy wax loo xam ne lii lii rek doy na solo c'est vrai que nag ku neex nga lëkkale ak lu la neex. Euh, imaam am na am na ay questions yu bëri yu mu ko lëkkalee dugg si euh, yenn statistiques yoo xam ne yi ban imaam. imaam imaam imaam al ah, yaa gën a baax ci baax. <laughs> yow ku baax nga wax imaam al amin <laughs> mais man Thierno euh, man Thierno Thierno lu mu wax d'accord naa Thierno amul problème Thierno man man ah. man Thierno man ànd naa li muy wax quoi loo wax baax na. non non waxuma waxuma dara lu grave amul problème non maanaam non dama bëggoon ne non approche bi nga jël c'est-à-dire c'est vrai de yeneen questions yi on peut les comme on veut parce que c'est vrai que parfois am na yu bëri yoo xam ne boo ko bëggee lijjanti euh, lëkkale ko ak yeneen dafay mën na ko lëndëmal daal te si njëlbeen da nga si waxoon sax si question bi lu am solo daal. parce que parce que dafay dafay dafay dafay indi si ñaari affaire benn affaire bi dafay dugg si dans le cadre de la séparation des pouvoirs euh, c'est vrai ay commission d'enquête parlementaire c'est des choses yoo xam ne yi jimmi jamono si corps bu mu dem mën na dem foofu. particularité corps bi mooy c'est un corps qui très protégé. bu leen neexee sax nga woole ñu ne ñëwuma. boo demee ba ñu si def ay ko ça c' est des choses laa bu wax ko c' est des choses koo xam ne yi dañ ko war a jël avec beaucoup de sérieux c' est à dire c' est pas ay opposition par ax yëpp lenteur sax c' est parce que en moment donné même dans exemple yu ñu joxe am na ñoo bëggoon mu gën a gaaw mm-hmm. ñu ne non nañ gaaw juger ko parce que dafa war a leer léegi balaa muy lëndëm ñooñu ñoo togaat bu mu neex leen noonu yéen li ngeen def dafa gaaw mm-hmm. donc loolu relativité jamono lu la arrangé li nga si jël ak li nga sul jël mm-hmm. question bi c' est une question qui est importante qui transcende xam nga ki euh, sànq Saa Wolof daf ne bi yoon mën na mooy mujj wax parce que du affaire parti bi moom vrai affaire réew euh, donc dama dama jàpp ne à ce stade là parce que ay juges man de dama jàpp ne comme li Ablaye Wade doon wax on a une une justice boo xam ne am nañu si war a jooyante mais on a de très grands juges man loolu laa gëm on a des juges yoo xam ne vraiment de très grands juges man jàpp naa juges yi ñi si gën a ndaw ñi nga doon xalaat sax mooy juge yu yu bees yi quoi xale yuy jël mais ay pas yoo xam ne yow wane nga sa sa sa sa xarañ ak sa xam nga ba sa fin de carrière bañ war la jël de costion dafa protéger juge li Ablaye Wade doon wax ne kenn tënku leen xanaa ñoom ñu tënk seen bopp. xam nga comme li ñuy wax nag àdduna dafa am solo sa diggante ak jaamu yàlla sa am na solo waxtuma la ak sa diggante ak sa borom. man de mu nekkoon juge. moo tax li ñu doon wax ci valeur yi am solo. juge sax war nañ leen tàggat quoi ñuy jàng yenn yenn saari parce que dafa am solo daal. Mm-hmm. man de dara si àdduna dara. jaraluma jaraluma loolu. Mm-hmm. alors. Thierno sàbbi si d' accord d' accord. Thierno daanele. waaw non fi fi ma fi mu bëgg a daanelee. Mm-hmm. vraiment mooy c' est est est important. jàpp naa ne peut xaw ma dañ ko gaawal xaw ma gaawal ñu ko mais na sukkandiku si loo xam ne lii dëgg la. waxuma dëgg la quoi c'est-à-dire ça doit être des choses très graves yoo xam ne nit ñi da war a mën a andi firnde. parce que ah bi jeexital bi ah tamit vraiment. jeexital bi mooy doo enquête benn juge doo ko laaj dara. yaay indi ay preuves yu mat nga xayma ko maintenant y une procédure wax ne bi c'est une procédure légal mën na am balaa boobu un ñi koy def dakkal ko ne non li amuñu amuñu opportunité continuer ko balaa boobu tamit mun na am que la justice elle-même s'autosaisisse de ce dossier pour mu am benn benn benn. Euh, comment daa comment on appelle ça loolu tam mun na nekk justice bi jëlaat la l'affaire en cours balaa ñii di sori sax moom mu jël ko saytu ko parce que autant affaire corruption grave na c'est ah grave ah oui c'est très grave autant aussi euh, def immixtion du législatif dans le judiciaire c'est grave na ko dëgg rek lal que que ce soit sur des faits graves yoo xam ne bu amee nag les gens doivent être édifiés que euh, yàqute gi yegg si na fii je je je je je reste nag persuadé que nous avons de grands d' accord très bien jërëjëf Thierno euh, Sawa la ñu terminer ak yow. bon pour man justice. dafa am lu euh, Bassirou Diomaye waxoon ci texte Facebook am boobu mu ne colossar colossalisation. waxul woon ne yéen si si ay colossar ngeen. dafa wax ne l' exécutif. Mm-hmm. dañuy colossardiser peut être que dañu déggul li mu wax bu baax maam dañuy diloo ma wàcce ko ci kàddu euh, làkku wolof. Mm-hmm. mooy dañuy diloo suñu ëtti àttekaay yi te loolu moom lañ nekk di confirmer nii su ma ñëwee ci Karim Wade man malhonnêteté moo ma dépassé xam nga nit euh, bi mbir mi amee man dama taxawoon fii yaakaar naa bokk nañu ay bi gars yi naan candidat France la ma ne ku naan Karim Wade candidat France la mhm. xamoo li xew far France ko xañ mhm. dafa am lu mu jibaloon 2018 ba mu ko defee la ci waroon a pare même bu mu defee déclaration sur l'honneur Thierno Alassane Sall li mu def dama jàpp ne bépp citoyen moom la war a def mooy nga jàpp ne lii wóorul nga dem dénoncé ko. beneen bi Karim Wade def nga xam ne matut njiit warut a jiite Sénégal mooy mu ne gis na ci candidat yi ñu am double nationalité te moom dénoncé wu ko loolu rek war naa tax duñ ko fal. waruñ koo fal ci mim réew. <coughs> beneen bi ci toppaat mooy li mu déposé woon au lieu mu maintenir loolu moom muy dem di bindaat France di jaay ak jonge ba France tontu ko ci léegi ñoom li nga xam ne moom la jébbaloon. Mm-hmm. lu sur l'honneur mu ne exclusivement sénégalais France tontu ko le 16 wane ne moom mi ngi koy doog ñàkk le 16 yow nga fésal ko dem yóbbuwaat loolu di jaay jonge conseil constitutionnel jib ci ne waaw kon yow bi ngay ñëw di waat sur honneur lii la te loolu la ñu bind kon fan la maanaam Karim Wade war a mën a waxe dañoo ger lii man xam nga man su ma déggoon waa ji kële nga xam ne gañ ko ci génne wala Abdourahmane Diouf wala ñooñu ñu daal ne dañuy porter plainte conseil constitutionnel parce que dañ leen a ger wala nangam mu xaw a yanu maanaam pour man venant de Karim beneen bi mooy waa APR yi koy nangul kii bi leneen la xam nga lu tax jarul gars yi naan pour ay aj élection fii élection kenn ko fi ajut xanaa juge yi bokk yenn juge mënoon a nekk ma supposé